mel parce que Macky dafa yeeroo yeeroo yeeroo yeeru ba fexe ba. am ñu di ñu maltraité nu mu ko neexee. Mhm. maintenant nag maltraitance bi dafa doy. parce que 12 ans mënoo jiite ay nit. absolument def ci lu la neex. mandat bi dama koy wàññi def ko 5 ans. Mhm. nga dem ba ci biir nga ne conseil constitutionnel ñoo bañ. loolu nga wax. Mhm. kon donc yow kon Macky Sall ba ko conseil constitutionnel di bañ mu wàññi mandat bi kon respecté woon na leen. respecté woon exactement alors. mu dematam ba yàgg. xam naa ci loolu laay laay laay chuté. demat ba yàgg. mu ne conseil constitutionnel lu ñu dogal dinaa leen ci fekk si. Uh-huh. boobu yaakaar a na ne conseil constitutionnel dañoo am complexe ba lu mu bëgg ñu defal ko ko. Uh-huh. conseil constitutionnel bàyyi leen assemblée ba ñu voté gendarmerie dugg génnee député yi ñu def lu leen neex conseil constitutionnel jël affaire bi ni ko ca sën ma. Uh-huh. mbëbës ñu demaat sonal seen bopp dem ci benn dialogue. dialogue moo nekk loo xam ne Sénégal dañ ko bëgg dama ne. réew mu nekk ci crise ñooy jaloge on n'a pas besoin de dialogue dans normal. bu dara xewul kenn fii kenn amu fi problème. problème mu Sénégal yëpp nañ waxante dëgg Macky Sall la. exactement du Samba du Demba nañ ko mm-hmm. waxte dee. te duñu dee sax dañuy dund parce que fii kenn mënu fee rey kenn te yàlla reyu la. exactement problème Sénégal yëpp Macky Sall la. mais nag comme moom aji kuy dem la yal na ko yàlla def ngelawam nangu mu dem. Mm-hmm. parce que en réalité moom kere na fi ay dialogue yoo xam ne amul njëriñ. Mm-hmm. am ay nitu bërki démb yoo xam ne ñu ci bëree bëri ci ñoom tekkiwuñu lu bari tey ak ëllëg. ñ ñëw toog ñii naan ay 2027 ñii di ne na fi maintenant conseil constitutionnel wane waat ko ne ko dialogue doxal ci yoon. Mhm. dialogue kenn institutionnalisé wu ko. dialogue kenn reconnaître ko ci démocratie dialogue du dara. Mhm. xam nga dialogue fan lay amee ci réew pour ñu tànn datu élection. Mhm. mooy bu dëkk demee ba jógee ci coup d'état. wala crise nga xam ne y a plus de loi on fait tabula rasa toog. seet naka la ñuy defee ba déterminer benn dat mais dëkk fekk jàmm mi ngi fay am du ñu dat élection dialogue du ko déterminer. c'est que Macky Sall ci jëm boppam dañ ko yàgg bàyyi mu nekk un hors la loi di def lu ko neex. exactement te loolu mu dul woon yoon mais nag conseil constitutionnel heureusement jël nañ seen seen exactement c'est très important alors temps tënk nañu te bëgg naa ne euh, euh, loo xam ne fee la dalee premier février ba euh, premier février 2021 ba àgg ci li nga moom mooy 25 février 2024 bii daal di nekk loolu yëpp dañ koy daal di effacer alors si jàngat bu gàtt lool. gis démb. Mm.

Euh, mankat boo ci exemple bu gën a kii bu gën a imagé bu gën a simple. Mm-hmm. maanaam danga digg sa doom ay ay dóor. Mm-hmm. man ma ñëw di ñaanal sa doom pour yow mi bàyyam nga bañ koo duma. Mm-hmm. waaye xale bi ci boppam taxaw ci wow bëtam ne ma pap Maguette kat sama baay nga waaye sama baay al amin dóor yi ma bëgg a dóor sa yoon nekku ci génn ci. ñaanuma nga baalool ma. xam nga ñoom déjà. wa heureusement ba waa Pastef seen làmmiñ damul seen poos. exactement parce que ñoom prouvé nañ ne laajuñu ku leen baal ñu sàkkuñu ko wëruñu ko. Mhm. léegi nag ñi ci am intérêt di ko sàkku di ko wër di ko laaj mooy ñoom ñi forcé ne dañ koy def. Mhm. c'est-à-dire que ñoom nañu dëggu te ñeme dëgg. c'est-à-dire que Macky am na séewul ku dul boppam ak ay prosam. Mhm. xam nga moom doomam bokk na ci ñi gars yi joxoñ baaraamu tuuma comme lan recruteur ay nervi mais doom dafa sax ci xol. il fera tout pour loolu bu fi jugee man waxuma ko. accusé wu ko parce que xaw ma ko recruter xamaanu ma ko waaye man loolu ñu ngi ko koy waxal moom. maintenant li gën a nekk kii mooy na bàyyi moom de toute façon aji kuy dem la na dem. bu gëmee ne moom Macky la bi mu fi nekkee ba léegi lu mu fi def yoon la lu mu doxal yoon la lu mu def noonu la na dem. bàyyi ñu parce que Macky Sall tooñu ñu ko moom ba muy ba muy kii. xam nga am na si am na sax ñuy dal xel naan way lu loxo def loxo mën na koo dindi. Mhm. mais loolu buñ ci ngoy mhm. loxo dina def loo xam ne parfois loxo du ko mën a dindi. Mhm. loi amnistie kenn koo xamante ne gis nga kenn koo xam ne gis nga loi amnistie bu ñu mës a def. ci àdduna dindiwaat ko génnal nga wax ko man ma xam ko gisuma ko. amul loi amnistie bu ma mës a gis ñu def ko dellusiwaat ci ce n'est pas possible. dañuy wax prétexte lay doon. prétexte la. xam nga nag du ma ne nag du ma ne nag lu mësta am ci àdduna bi mënta am commencé Sénégal. du ma ko wax Sénégal c'est c'est une grande nation dëkk la. donc dëkk la boo xam ne ay vote ay nangam dëkk bu yàgg la yi njëkk am université ci Afrique ci la bokk. donc dëkk bu yàgg la. mën na am amnistie mosuñu koo teggee fenn te mën na am Sénégal dinañ ko fi teggee ji. waaye Macky Sall ci boppam diggante bëtukub nopp cest à que diggante bi muy jeexal mandaam ak léegi. amnistie bi ci boppam même bu jaree même bu jaree ñu dem ci ëttu attekaay loo mu mën a jar ci àdduna pour ñu teggi ko dañ ko war a def. Mhm. parce que Macky Sall amnistie pourquoi defu ko woon bu yàgg ba tey. Mhm. waaye Macky Sall mënu fee nekk ba war a dem rakkam Aliou Sall mais lu ne waxal nañ ko ko. Mhm. loolu nag parce que amnistie bi nee nañ mi ngi concerné les les événements liés au au manifestations. wala les incidents les emprisonnements et auto liés au manifestations. en tout cas Ousmane Sonko diggante 2021 ak léegi. Ousmane Sonko ñi mu àndal nee nañu balu bëgguñu ku leen baal. baal wu ñu léegi ñoom bu ñu nee Sonko moo tax ñu def ko ak waa Pastef boo ko waa a tax dañu bëgg a tuur la ndëm sénégalais yi. exactement c'est-à-dire est-ce que nekkuñu di gracier. Mm-hmm. wala boog est-ce que nekkuñu bëgg a mm-hmm. am jëfu ñi nga xamante ne en réalité ëllëg. Mm-hmm. bu ñu demoon di topp mbir mi di xool ku def. ñoom la ñuy introsé muy ñan. ñan ñoo nekkoon ci terrain bi les FDF et FDS. muy les force de défense. Uh-huh. ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi. léegi nag ñooñu bu boobaa bu ñu ci eggoon ba war a introsé ñoom bu ñu leen laajee. Uh-huh. daa ñu wax kan moo leen def loo. Uh-huh. am na peut-être ay ay ay ay collecte yoo xam ne ñi mu concerné def nañ ko. ci ay bal perdu wala ay mbir yu rey ay nit wala dara. su boobaa bu ñu ko yóbboo. CPI ak feneen am nañ ay experts balistiques am nañ leneen dinañu xool xam bal bi kan moo ko defar uh-huh. fan la jóge ci ban angle la reyee nit ki nit ki nangam ak nangam parce que yooyu yëpp ay borom xam-xam a koy gëstu teg ko uh-huh. en tout cas am Macky Sall amnistie bii muy teg kenn bëggul ab amnistie am uh-huh. kenn laaju ko mu amnistie kenn kenn sàkkuwul ci moom dara xam nga Macky Sall wax ji wax ji lal la ci gàttal alamin kenn da ko ñaanul dara exactement kenn sàkkuwul ci moom dara ngir yàlla wali suul yii donte ñaan ko ko sax warutul woon. Mhm. parce que du amuñu luñ koy ñaanaa. vraiment mais cette fois si bu ko bu ko neexee Macky li nga bëgg ñu lay ñaan ci njekk bu la neexee sax ñu ñaan la ko ci njekk mhm. kenn soxlawul sax amnistie. Mhm. kenn laaju la nga amnistie ko. kenn soxlawul ci yow dërëm bul fi gracier kenn. avril léegi ñëw bul gracier ñu la ko soxlawuñu la ko laajuñu la ko. demal saw yoon. parce que de toute façon yow ñi nga ñi nga to ñi ngeen toroxal. tëj leen boobu ba léegi. ñooñu soxlawuñu seen i ndax ñooñu léegi bientôt Sénégal am changement te par la force dina am. incha allahu rabbi mhm. su boobaa nag ngeen dem seen yoon bu keneen ñëwee xool na lay tegee Sénégal ci dëgg ak yoon. exactement loolu rek nañ daal di euh, xaarandi ana mooy daal di ñëw pour lijjanti euh, li nga xam ne nag moo fi jotoon xew dalee ko 2021 ba jàpp li nga xam ne nag moom moo di 2024 képp ku si daal di ñaax sa bakkan nu daal di euh, indi si ay leeral Pape Maguette maa ngi lay jaajëfal bu baax baax waxtaan bi amoon na solo trop. waaw mais temps lu neex du doy lu baax du doy mhm. ah, lu mu ci mën a doon it la ca mat a wax bu ñu ko waxee rek day da ci dañ ko ciy mën a yemale mhm. kon nag euh, ñi ngi lay mm, ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay sant mhm. euh, di la gërëm bu baax a baax a baax a baax ah, di wax ne nag euh, kon li lañ ci lii lañ ci lii lañ ci doon